wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa radiyallahu an barzaqi almaktum alxayb taaju alaarifin wa imaamu alawliyaai sayiduna wa mawlana cheikh ahmad ibnu mohammad atijaani sharif radiyallahu taala anhu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 ni ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirahum la yuminuun ni ko ñii boo fi nekkoon ba suba di leen waar ak di ci sonn seen mbir ak di wax ak du nu dégg waaw nee dégg mu ni lu tax mu ni xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim waaw sawa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 ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leeru sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leeru sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leeru sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan lil abidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leer sunu rox ba ñuy ànd ak leeru yonent bi